ko mënu ko ana ñëwoon it bu mënee it du ko def tribune yéeni kaay ne Macky Sall day wane na ni politique dëgg da koo mën ci réewum Sénégal yéeni kaay groupe des médias bi ne moom président Macky Sall day daal dinay jël Boubacar Camara ni teg ci wetam audience la ko daal di woo mu daal di koy wuyu ca pale de la république bi yéeni kaay bi ne coalition bu Ousmane Sonko kay la Macky Sall daal di kalaateel ndax ka àndoon moom ba ko ñëpp bàyyee ci élection présidentielle bi kookee moo dem fekk président Macky Sall journaliste bii di Adama Gaye moo ko daal di xamle yéeni kaay des médias bi jottali ko moom Boubacar Camara day tey ma ngay wax ay waxi naxa sakandang waaye la am te des moo di wuy ji le président Macky Sall te Ousmane Sonko it yëgoon na waxtaan woowee Bruno Derneville turbine yéen kaay ne ma daal dina yekk lu mel ni keteme Boubacar Camara xas ko nag ba mu daal di ràpp le quotidien le quotidien ne audience diggante Macky Sall ak Boubacar Camara ay dëgg jot na day daal dinay fës Ousmane Sonko ma jiite coalition ba nee na Boubacar Camara yëgalu ko waaye nag artu woon nañ ko xamaloon nañ ko lu ni mel ci réew mi Sénégal gii day ak politique am waaye président di ci dox bëgg na la xañ nguur gi mu tas la tasar l'observateur ne schéma politique bu yees la Macky Sall di teg fii ci réewum Sénégal xam ngeen ñi mu bokkal alliance am bii di parti socialiste ak AFP am na ñoo xam ne caa bëgg rocceeku génn président nag ñëpp la bëgg daal di foggaat ñu daal di des ci biir Benno Bokk Yaakaar fay nekk ca Casamance bëgg na ko tojate ba mu mokk rum wax ngir Ousmane Sonko gaayam duñu am fu ñu jublu ngir nag mën a am lu ni mel ci parti socialiste AFP ak ca Casamance moom Macky Sall yaakaaru ci kenn ku dul Abdoulaye Baldé ak Malick Gakou l'observateur ne day bayee boo ngeen xam ni moom directeur de cabinet président de la république Macky Sall day mooy ki dee président Macky Sall Mahmoud Saleh nag mooy wax ki baax ku bon ku ñuy génne ki ñuy dugal Mahmoud Saleh daanaka mooy lépp président Macky Sall réew mi quotidien ne président Macky Sall day mu ngi jël ñëpp waaye dafa bàyyi Mamadou Diop Decroix moom Mamadou Diop Decroix ci yéene kaay bi ne Macky Sall moo la gën a xam ni du ma mës a liggéey ak moom les échos yéene kaay ne politique baa ngi de leader politique yi daal di xaajaloo ñaar Abdoul Mbaye ne front national bi dafa am ay workat yu ci nekkoon Cheikh Bamba Dièye ne baye boo ñu del suwaat suñu xel de te xam ni benn bi ñu booloo doon benn tribune yéen kaay ne ñu àgg kay ci àndaat mooy ñi dàqoon ci parti socialiste tey ñu doonaat benn yéen kaay groupe des médias bi ni ma El Hadji Ahmed Aïdara day jubóole na Khalifa Ababacar Sall ak Bamba Fall ci meeting bu mag bu amoon te géej waaye la bokk amal ko les échos yéen kaay ne Khalifa Ababacar Sall ak Ahmed Aïdara kay dañ faa jaare daal di lëkkaloo nag ngir élection local yi ñu doon ci allié laas ne lëkkaloo gi kay yemul ci élection locale bi waaye nag bëgg nañ fee jële moom El Hadji Ahmed Aïdara Khalifa Ababacar Sall Macky Sall waaye rakk jadi Aliou Sall enquête yéen kaay ne moom Khalifa Babacar Sall day wax na te géeja waaye la daal di waxee moom mi jiite woon mairie bu Ndakaaru nee na dina dem ci élection locale yi ànd caag nag géejawaay laa bokk ci week-end bii ma nga woon ci géejawaay moom Khalifa Babacar Sall lu toll ci juróom benn ci maire socialiste ña nga woon ànd ak moom Khalifa ne su ma doon nguur dëgg dëgg dinaa tàmbalee ragal tribune yéene kaay ne du Khalifa Babacar Sall rek moo wax de ndax El Hadji Ahmed Aïdara day yëkkati na ay kàddu foofee ca jotaay ba nee na man du wor samay àndandoo démb ñooyu tey kon nañu fàq jëmale élection locale ya ko yéene kaay ne faq jëmale présidentielle yi day la président Macky Sall fas yéene def Thierno Alassane Sall ci gi mu am dëgg moom moo di wéy di des ci nguur gi ndax bu ko deful kaso daal dina koy ñeel moom yéene bi jox kàddu Thierno Alassane Sall mi yëkkati kàddu grand jury ne contrat yi Petro-Tim yii dañu ko koo jox ci façon boo xam ni àndut ak benn légalité Macky Sall lépp def na ko ngir nag bañ a jël ay rapport IGE yi nga xam ni arrangé wu ko ay ñooñam lañ ci di tànc moom Thierno Alassane Sall yemu ca nee na Franck Timis ak ñëpp ñoo xam ne jàppale nañ ko ba mu am contrat bi ci diirub ñeen fukki at ak juróom pétrole bu génn ci réewum Sénégal daan ci am téeméer boo jël benn di un pour cent les économies moo taxit Thierno Alassane Sall daal dinay taqal ripp Abdoulaye Wade Macky Sall Karim Meïssa Wade ak Aly Ngouille Ndiaye 24 heures yéene kaay ne Thierno Alassane Sall ka yëngal na bu baax a baax république bi source aanee waxtu woowu day moom mi Mimi Touré ma ngay mer ba tey wax na la muy wax tuddul Macky Sall génn dem yoonam critique yéene kaay ne maître Moussa Diop kay dem dikk gi la daal di naqarlu bu baax a baax ndax jàpp na ne dañoo liggéeyal Macky ngir mu samp Idrissa Seck laas ne moo taxit maître Moussa Diop mer na ba daal di futtu l'enquête ne waa Dagana yi daal dina ñii mer lool ci Makhtar Cissé bi nga xam ni génne nañu ko ci nguur gi dal di fay teg Omar Sarr l'observateur ne waxtu woowu njàng meeg njàngale mee ngi am ay jafe-jafe de ndax école mi ngi ubbi alxamis gii waaye jafe-jafe yi neen na ci ndongo yi di am boo moytuwul le soleil yéene kaay na jafe-jafe gaa nga ci États-Unis Joe Biden jël na nguur ga te fulla ak fayda ak jom ak jàpp tawa bàyyi moo ko may mu doon ñeent fukk ak juróom benneelu président bu États-Unis waxtu woowu réewum Sénégal day ña ngay daal di naqarlu bu a baax yonent bu teddu l'islam bi bii ñuy daal di jël di koy destiné ci tugal libération yéen kaay ne barça wala barsàq day ñëwati na sunu ndaw yi di wéy di faatu ci géej yi fii ci Mauritanie rek saa bu ñu xëyee ay néew di daal di teer fii ci senegal nag gox yu bëri ñàkk nañ seenu ndaw ndax ñoom ñëpp faatu nañ ci géej gi tribune yéen kaay ne demal ca Mbengeen ca diwaanu Louga ab dëkk dëkkaat la su tuut waaye jamono jii ñaar fukk ak juróom ci xale ci seeni doom des nañu ci géej gi daal di faatu di leen ñaanal yi kenn